média yéen kay bi laajte lan moo tax ñu sonal leaderu gëm sa bopp bii di Bougane Gueye Dany a mii moo ci yoon bu baax bi lii moo tax mu bëgg koo sonal balaa élection di ñëw tëj rajoom beeg terrain bi ba du am fu mu waxee waaye leaderu gëm sa bopp lijjantiwu leen sax ndax jamono ji li indi coow coow li ñu war a tëjee teleem bi ak rajoom bii moom ci yoon la nekk ndaxte depuis 2013 mësul am beneen problème mu lépp lu jëm ci fiscalité di ko respecté kon na nguur gi bëgguñ leen lu tudd rek faagaagal ko La Tribune yéen moom daf ci ubbi xët bu yaatu tey xamle de démb de ay gendarme yoo xamante ne ni dañoo armé ñoo fees dell des médias yéen bi di xamle na gis nga léegi nag leer na dossier des médias bii ñu ngi ko bëgg a accéléré

yéenekaay bi ne ñu nangu benn yoon koo xamante ne nii sax PS ñëw di ñu imposer ay loi Barthélémy Dias di xaar nag nekk candidat officiel bu Yewwi Askan bi su su aanee ne yëf yaa ngi bëgg xajam de coow lii nekk ci diggante Soham Wardini ak Barthélémy Dias fi mu toll nii kenn ku ci nekk am nga ku lay dooleel xoolal Soham Wardini gars yi dañoo xam ne nag ni ki démb réunion bu yàgg te metti mu mujjee am a tracé ci diggante moom Cheikh Gueye la laajte taxawaayam bii nu mënee nekk ndaxte moom ca réunion bi nga xamante ni nii waa taxawu Dakar def nañ ko moom moo joxe woon ñaan ngir ñu commencé réunion bi kon nag moo tax mu daal génn ca réunion ba dem taxaw

firndeel ne candidature bu lañuy dëggal moom Soham Wardini day mujjee toog xaar yéeni bi di xam la ca wet ga ne gis nga femme des leaders yu bokk bi tax na muy sàkku ci presse bii di tey ci coow lii l'observateur ubbi bi yaatu tey laaj ci taxawu Dakar bii fan moom moom moo wala tracé dëgg gi waaye ba tey ji kenn dégg ko mu wax lii di firndeel na am na position bu mu taxawee waaye tiit loon na yenn ci ay leaders yoo Dakar Barthélémy Dias ci biir yéenekaay bi di xam ne gis nga man lijjantiwuma lu neex kenn taxaw Dakar tànn nañu ma ba noppi donc amatul beneen coow ku neex ku naqari may kandidaaw taxaw Dakar yéenekaay bi di xam ne gis nga taxawaayu Barthélémy Dias bii dafa mel ne Khalifa Ababacar Sall d'accordu ci ndax tekk tekkaaralam gi jaaxal nañu bari ca wet ga yéenekaay bi di ñu ne soxna Aïda Diallo mi nga xamante ne nii attaqué woon nañ ko ca a

candidature am bii dañ koy confirmer yéenekaay bi di xam le ak lu ci mënti xew Yewwi Askan bi moom ñoo ci tànk tas ndaxte seen xuloo yi xeex yi bëri na lool ci fan yi ñu génn Les Échos yéenekaay bi dafa am loo xamante ni kenn mënu ko accepter gis nga sama diggante Ousmane Sonko lu tolloo fukki bakkan ak ñeenti rot nañ ci kon nag dëgg gi dafa war a leer bu fekkee ne man maa tooñ ma dugg ci kaso bi des fa bu fekkee Ousmane Sonko moo tooñ tam mu mënatuma sax dund dund normal Adji Sarr di xam ne ci biir yéenekaay bi ne man soxlawuma xaalis dëgg gi ci boppam laa bëgg mu leer damaa sonn ci quartier yeeg menaces yi amul sax léegi benn quartier boo xamante ni lii li ne sonn naa dee naa tàyyi naa ci sama dund gii Adji di xam ne ne wax dëgg fa yàlla man dama war a dund comme yeneen sénégalais yi ni ñuy dundee am seen jàmm tey dox seen soxla waaye coow li mu jénn maa sonal lool te soofu ma <laughs> ey sunu gaal ay baax na du ma ci débat ba suwaag jàmm incha allah